رسول الله رسول ñu ngi euh, am mbégte bu rëy ci teewaay bi fii tey amoon nañu yéene sax fekke lenn ci burdu bi waaye dañoo newoon bitim réew ñibbi si démb moo tax tey ñu teew si fii waaye bi ñëw it gis nañu yaatu ouverture bi nga xam ne xalif bi wane na ko ci bi ñuy dugg dafa fekkoon muy waaj mu war a génn waaye bàyyi na li mu doon def dalal ñu jël temps bu bari waxtaan ak ñun tamit di waxtaan diggante euh, sëriñ ak taalibe waaye di waxtaan surtout diggante bàyyi ak doom ndax ay ndénkaane la yoo xam ne joxe na ko ci li nga xam ne gannaaw dayer bi mu waxee ci lan mooy solos gàmmu gi nga xam ne lépp ci euh, bëgg a màggal ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun jullit mu ngeen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu waxee ci li jëm ci gàmmu gi ak lan moo ko waral ñu jàpp ci li mu wax surtout ci ngën ngën ji mbindeef mu yonent yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu jëlee ci ay ay ay leçons yu am solo joué na aussi rôle bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci kilifa diine yi mooy joxe na ay ndénkaane ci li nga xam ne mooy suñu wareef ñun ñi nga xam ne ñoo féete mbirum àdduna su dee noonu lañ ko mën a waxee parce que mbirum àdduna amul amul lenn loo xam ne nit ki dina ko def mu yem ci àdduna lépp loo fiy def rek am na jeexital euh, fi ñu jëm mooy euh, suñu mujjantal ci kanamu yàlla

ndax nun ñëpp bokk Sénégal te Sénégal ñëpp mbokk lañu ñaar ñiy xëccoo wala ñuy jàmmarloo boo xëccoon ba xëcc di nga fekk am na fu ñu bokk wala am na fu ñu daje ci ay ci mbirum deret wala am na fu ñu bokk ci mbirum alliance kon Sénégal réew mu ndaw la ñun ñëpp ñu bokk ko kon ñoom seen rôle loolu la mooy toujours wàllu moral bi wàllu spirituel bi ñu ñuy fàttali ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen fànn wi ñuy dellusi ci valeur yi nga xam ne moo war a jiitu wala moo war a doon laytaay ci suñu action kon wax dëgg yàlla am nañu mbégte bu rëy rëy tey ci ñëw gi euh, déggu nañu kilifa gi bu baax a baax wax nañ ko tuuti it ci li nga xam ne mooy suñu gis-gis ci Sénégal ak lan moo waral ñu ñuy xeex def naa mënuñu ko woon ñàkk gaaral lu mel noonu wax nañ ko ci tuuti waaye soriwuñu ci ndax bésu mel nii du bésu politique

ak diine gu ñu mun a bokk ak tarixa gi ñu mun a bokk régulateurs sociaux yi yàgg nañ ko ci réew mi nañ ci bu baax euh, Al Amin mi nga tudd nga xam ne ci wàllu diine gi ñëpp xam rôle bu mu doon joué pour euh, jokkale ak jegente jegele euh, këru diine yëpp waaye weesu na sax këru diine yi diine yi si boppam waaye it ni am na rôle bu bëree bu rëy rëy bu mu doon joué ci saa suñu ba tension politique am fu mu yegg defe naa moom bokk na ci ñi nga xam ci lu fës ak lu fësul amna na jéego yu ci daan dox ba ñu mujj am jamm ba yalla wiss ci dox bu set kon koku defe naa référence la kay la waye dafa bokk rek ci tradition bi nga xam mom lañu xam Sénégal te nitu diine diko jouer ba mu permettre ñu malgré fayitu élite politique yi léeg mom moom mosuñoo am yenn problème te yalla bu buñ ko mus am ila yow mi رسول الله رسول الله حبيب الله